asalaamaaleykum mbokku télé téléspectateur télévision El Mauritania dal leen jàmm ci seen émission yu ñu baaxoo di leen ko defal juru gu jot bu ni nii jotee ñu dikk ak yéen ci benn ci émission yi tey nag ñu dikk ak ci waxtaan bi nga xamante ni moom mooy waxtaanu askan bi doon euh, émission ba nga xamante ni dañuy dajale suñu diggante ñun ak yéen ci lépp la nga xamante ni mooy seen mbëbët di waxtaane lépp la nga xamante ni ñeewal na askan wi waaye it di waxtaane lépp la nga xamante ni day yee askan wi. ci noonu nag ci la ñu fas yéene waxtaane tey jii lu jëm ci wàllu mbay ndax euh, umpalewu leen euh, kii nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Mouhamadou Cheikh Walil Ghazouani euh, ci ay bés bi ñu génn demoon na fa li nga xamante ni moom mooy Rosso di capitale bu Trarza ngir def li nga xamante ni moom mooy ubbiteeg li nga xamante ni moom mooy campagne agricole comme ni ñu ko baaxoo di ko def at mu jot atum reen ji mu def ko ci ay bés yu ñu génn naka nga xam nag ni mbay dafa am solo lool ci li nga xamante ni moom mooy ponki ko mi réew mi ci loolu nag ci lu ñu fas yi ni waxtaane tey jii daal di dalal ci suñu plateau ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Sène Mohamed Sène maa ngi lay nuyu di la wax ne eh, am naa mbégte loolu dalal la ci suñu plateau bi tey ji ngir ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne moom mooy wàllu mbay ak lépp lu ko ëmb. Ah, maa ngi leen fay di nuyu téléspectateur Al Mauritania di rafetlu jataay bi. Mm-hmm. jëm ci wàllu mbay nga xam ni mooy suñu métier. Mm-hmm. moom ci ci lañ yëngu. Mm-hmm. kontaan nañu trop toog ak yéen fii ci seen plateau bi. Euh, voilà jërëjëf ñun tamit kontaan nañu ci euh, fas yéene seq gi waxtaan bi nga xamante ni tey jii moo ñu fas yéene dajale euh, naka ma ko waxee woon rek ci njëlbéen li nga xamante ni moom mooy wàllu mbay dafa doon am solo lool ci li nga xamante ni moom mooy suñu koomu réew soit mu di mbay pepp soit mu di mbay fruit soit mu di mbay légume lépp la nga xamante ni mbay la am na solo lool ci suñu dindin kon nag ngir ñu mën koo yaatal mën koo jëmale ci kanam faw ñu toog daal di ci waxtaan daal di ci def ab faram-fàcce bu yaatu ngir ku ne tey jii xam naka la ñu mën a def ba mu gën a mën a yóbbu li nga xamante ni moom mooy suñu yokkute réew ca kanam ba tey ci loolu ci laa dalal ab ndaw di Adama Sy Adama nuyu naa la yow tamit. Euh, maa ngi lay bu baax di rafetlu invitation bi. Mhm. ginnaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur plaisir ak laa am ñëw fii nii parce que mbay dafa doon li nga xam ni moom laa bëgg. Mhm. bëgg-bëgg la ci man ma ma dem ci wut ci ay xam-xam ba am ci tuuti xam-xam. di ko def bëgg bëgg bëgg bëgg ci continuer. Mhm. ba tedd ci ba teral ci am samay waajur. amin amin yaa rabbi yal na yàlla ubbi bunt yëpp ubbi xéewal yi ba lépp la nga xamante ni moom nga ciy mëbët yàlla may la ko ci tamit euh, ci loolu rek ci la ñuy ñaan waa régie ñu daal di ñu envoyé élément bi nga xamante ni Babacar Naam jotoon nañu ko defal ci li nga xamante ni moom mooy ubbiteg émission bi. seen émission askan wi. ñëw ci beneen pàcc ak ci beneen poñ bu am solo ci dundu ak ci doxalinu réewum Mauritanie ku wax askan wi wax soxna Léna Dièye mu dalal nag ak ay kàngam ci wàll wi nga xam ni mi ngi koy waxtaanee mu jëm ci wàllu mbay mbay nag ku ko wax wax suuf ku wax mbay wax li nga xam ne mooy jumtukaay waaye ku wax mbay wax li nga xam ni euh, moom mooy euh, ñii di baykat yi euh, loolu moo waral tax tey ji seen émission askan wi di grand débat ñu war ci waxtaan waxtaan wu yaatoo yaatu gannaaw bi nga xamee ni njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mu nga woon ca diwaanu Rosso doon fa joxe li nga xam ni moom mooy doorte campagne bi nga xam ni dañ ko jagleel mbay mi ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn jàpp atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar loolu moo waral tax jafe-jafe yi tar lool ci ñi nga xam ni ñoom ñooy jàmbaar yi nga xam ni ñoo nekk ci suuf si ñenn ñi soo leen laajee ñu wax la ni la lii nga xam ni euh, moom la ñuy dund kenn mënu ko wax te yàlla bu ko noon xam ndaxte léegi ñu jël li nga xam ni moom mooy ak ay bor waaye bor yooyu pour ñu delloo si ka dafay jafe lool jafe-jafe suuf tamit di am lool ci ñoom ndaxte suñ leen waxee ñu ni suuf si kat dañ ci teg loxo te ña ca teg loxo ñoo leen ëpp doole loolu muy ay jafe-jafe yoo xam ni ñooy sunan ko bu dul benn du ñaar ci bopp réew mi ngir rek ñu mën leen jàppale euh, taxawu leen ba seen jàngoro mën a saafarawu waaye ku wax tamit que mbay wax li nga xam ni mooy programme programme boobu moo waral tax njiitu réew mi Mouhamed Ould Cheikh El Ghazouani keroog bi nga xamee ni jël na réew mi mu am ci mbébét am ci tamit yéene taxaw ngir mën a fexe ba jàppale askan wi waaye jàppale ñii di baykat yi ngir rek ñu mën a fexe ba di daan seen doole waaye tamit di ko am ci anam yu mucc ayib loolu moo waral tax ni soxna Leena Dièye tey ji war ci indi ci seen émission askan wi di grand débat waxtaan woo yaatoo yaatu ngir mën a fexe ba gimmi wala leeral lépp loo xam di lëndëmoon na ak i ay invitéem Euh, voilà mbokk téléspectateurs yi gis ngeen élément bi nga xamante ni moom la ñu Babacar Naam indil ci li nga xamante ni moom mooy comme ni ñu ko waxee woon ak ci euh, ca njëlbeen bi nga xamante ni jiitu Mouhamed Cheikh Mouhamed Cheikhul Ghazouani dem na def ko fële nga xamante ni moom mooy Rosso wax tamit ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ni xëy na jëm na ci wàllu suuf ak lépp li nga xamante ni moom mooy euh, li ko wër Mouhamed Sène su ma ci yow tey ji yow fa nga xamante ni moom mooy diwaan bu Kër Masène ba nga yëngoo boo ñu doon expliquer wala nga ñuy faram lépp li nga xamante ni moom mooy seen taxawaay ci wàllu mbay tey jii ngay dooree. waaw damay rafetlu ubbi campagne bi nga xamante ni jiitu réew mi def na ko fan yi mhm. ñëw Rosso pour ubbite campagne waaye suñu jafe-jafe yi nga xamante ni ubbite campagne bi teel na ñëw te baykat yi taxawaguñu. Mhm. maanaam baykat yu ndaw yi taxawaguñu baykat yi nga xamante ni dañu am jafe-jafe yoo xamante ni dafa mel ne Euh, wàllu kuy ubbi campagne. da nga war a am looy jëkkee. ci nu mu mel noonu. maanaam indi matériel boo xamante ni. béykat bi tey ji bu taxawee rek dafay daal di jóg jublu ci mbay mi. loolu mooy jafe-jafe béykat yi nga xamante ni am nañ ko ci ubbite campagne bi campagne bu fekkee ni tey président ubbi nag ñu ni ubbi na campagne yu mbay mi le temps te béykat bi xëy mënul commencer. ay activités maanaam am na lu ko gàllankoor loolu ko gàllankoor ba tax du dem jublu ji ca mbay ma loolu la ñu waroon njëkk. maanaam dañu waroon def dañu waroon def ay étude ba xam lan mooy seen ay jafe-jafe laata ngeen di. tàmbali. kon euh, mën nañu wax ne ubbite campagne bi yéen euh, paregu leen pour euh, li nga door li nga xamante ni moom mooy wallu mbay gi. ñu ko ndax ñàkk ay moyen ñàkk ay jumtukaay yoo xamante ni da nga war jóg rek daal di jublu ci mbay mi. comme ay tracteurs yoo nga xamante ni tey jii ñooy wëlbati suuf si comme ay machines yi defaraat digg yi waaye yéen boobu ba léegi ah. Mouhamed seen boobu ba léegi mm-hmm. yéen a ngi bay ndax euh, bu ñu waxee mbay tamit ci Kër Masène lu am solo la ci li nga xamante ne moom mooy seen wàllu koom mm-hmm. euh, euh, gis nañu ne xëy na moom mooy seen activité principal maanaam lépp li nga xamante ni moom lañ lu fa gën a fës ci lu ñuy yëngu moom mooy wàllu mbay te dangeen doon bay boobu baag léegi yan mooy ngeen doon utiliser pour mën a door seen seen campagne daaba da daaba daaba rek maanaam comme ni wolof fi di waxee daaba daaba di taqale rek ñun suñu mbay mooy taqale rek ba ba am liñ ci bëgg mm-hmm. luñ ci bëgg dëgg-dëgg mënuñu ko am tant que euh, li ma lay wax amul mooy ñu teg sur place moyens yi nga xamante ni baykat bi bu jógee rek day daal di jublu ci mbay ma. dinaa dinaa ci euh, ñëwaat léegi euh, ki nga xamante ni moom mooy Adama si Adama si bu ma juumul danga ne ma dangay bay li nga xamante ni moom mooy wàllu légume. Hmm. Adama tey ji boo ma doon euh, boo ma doon xaymaal légume ak lépp li nga xamante ni moom la ñuy bay fii ci biir réew mi ndax yaakaar nga ne li ñuy bay fii tey ji mën na satisfaire li nga xamante ni moom mooy soxlay askan wi ci wàllu maanaam légume bi ñuy jëfandikoo est-ce que yéen mën ngeen bay li nga xamante ni mën na satisfaire askan bi. defe naa ne Mauritanie 4 millions d'habitants rek la mhm. donc pour satisfaire Mauritanie ci en terme de bay mhm. war na mën a nekk ci naka ndax bëri na yuy chômé mhm. mais nag day fekk état bëgg ci def dara état bu jëloon moyen bi doy jël jeunes yi formation nag mooy njëkk former leen ci wàllum mbay bu nu paree mu jox leen ay financement yu doy ba pare leen bàyyi leen bu ma paree ma jënd bu jëndee moom mooy xam ni muy jaayatee comme yeneen dëkk yi ñu ngi koy doxalee. Mhm. mais ñun nag bu dee ku nekk baykat bu nekk dafa dem mais côté. Mhm. man léegi damaa am ak man maa ngi bay ak sama benn xarit dañu dem wut suñu suuf di bay. Mhm. keneen dafa dem loolu ñun dañuy nekk benn zone presque ñun ñëpp bëgg bokk li ñuy bay. bu bu bu bu demee am ay produits yuy manqué yii di am. yii di am yii léegi ñun ñëpp bu ñu bayandoo du ñu jaarle parfois. parce que ñëpp ñu day am ci marché bi parfois day am. parfois tam nag produit yi ñuy indi day day bëri. Mhm. parce que bu dee ay vingt sept camions ay trente camions jóge di joge bitim réew. Mhm. bu mu tudd dëkk. Mhm. si c'est pas di ñëw di dugal seen i marchandises fii nii te doomu dëkk bi ñu ngi bay di di lambale te ñoom bu ñu ñëwee fii di jaar la donc loolu man leen laa si bëgg dama bëgg si état laay na def bay bi priorité. priorité parce que bay mooy développer dëkk. dëkk mënoo ko développer. te jaaroo ci mbay. Mm-hmm. parce que nit ki li nga xam ne euh, li muy lekk li bu dee du moom moo koy defal boppam moomagul boppam. Mm-hmm. tant que li ngay lekk li moo. autosuffisance alimentaire boo ko mm-hmm. yorul moomoo sa bopp. damay jox exemple ci kaaw euh, problème mu Syrie bi kii bi nu mu tudd sax euh, frontière u Maroc ak Mauritanie bi. waaw ci ci ci ci ci début Covid Covid bi dem na ba kilo tomate di jar ñetti junne. ba gën a xeex essence. loolu doy waar la. te seen yore àll bu ni gaañ yore suuf yore ndox ay doomam nekk fi. Mhm. pare pour def ko donc nan leen jàppale. Mhm. waaw man daal loolu pour man daal. Mhm. pour euh, pour première pierre nag Mauritanie tàmm na nu tegi première pierre. loolu loolu dañu koy bàkkee sax première pierre moom ñun ñun ñoo ko moom. ñoo mais ñun dañu bëgg mu am li nga xam ni. mu am suivi. mu am suivi bu mu doon première pierre et dernière pierre. Mm-hmm. na doon première pierre bi nga xam ne day avancé. Mm-hmm. loolu laa ci bëgg sax. Euh, am na solo ba tey ci li nga xamante ni moom mooy wàllu mbay gi gis nañ tamit euh, li nga xamante ni moom mooy seen taxawaay euh, comme dama dañu tàmbali nga tàmbali maa jàmbat waaye bëgg naa tamit nga wax ma yéen seen façon mbay naka la nan lay demee ku nekk dafa am projet boppam wala ci par ci ay mbootaay ngeen di ngeen di bayee wala nan la ku ñëwoon tey jii di leen dimbali nan nan lay ci lan lay sukkandiku yéen waa Kër Massène waaw ci wàllu ceeb bi am na am nañu mbootaay c'est-à-dire euh, coopérative yoo xamante ni dañu lëkkaloo di di bay. Mhm. coopérative biir dëkk bi ñoo moom biir dëkk bi ñoo moom. Mhm. ci wàllu maraîchage bi ay jeunes yu volonté yu yu yu takku rek daal di def ñoom it seen benn. mbootaay bu ndaw ñoom it jël seen suuf jël seen matukaay bopp di bay noonu daal lañ koy jàppee ba léegi yan yan yan xeetu yan xeetu ginnaaw ceeb bi yan xeetu euh, mbay ngeen di bay foofu ci euh, ci foofu nga xam ne te moom mooy Kër Massène ci wàllu maraîchage wàllu maraîchage bala daañu way sortu lëjum yëpp bépp lëjëm bu bu bu ñuy utiliser fii ci biir réew mi bu ñuy jëfandikoo ci biir réew mi noonu koy bay yéen a koy bay bay est-ce bu ngeen ko bayee tamit di ngeen ci am rendement maanaam euh, bu baax bu baax sax kon kay soxlawu leen dimbal soxla noonu ko kay dimbal kay am rendement moom mooy soxla ndimbal mm-hmm. mais que amul rendement soxlawul ndimbal parce que du ci yàgg mm-hmm. ñun lu tax ma la am rendement maanaam am am pexe moo xamante ni bu nu amoon dimbal tey li muy wax marok bi ah. Mm-hmm. du du duñ am place fii ci biir réew mi. lu ñu wax Sénégal du am place bi réew mi kon doomi réew mi mën nañu. mën nañu bay li bay li nga xam ne mooy autosuffisance ba nga xamante ni mooy mm-hmm. rendement bi mu la wax. Mm-hmm. mais rendement bi sans euh, moyen yoo xamante ni amuloo ko. ceeb maanaam mbay moo gis léegi moyen moo koy moo koy génne rendement boobu moyen moo koy génne mhm. te moyen bi mooy ñu jàppale baykat bi nga xamante ni maamam mbay la xam mu juddoo ci mbay mhm. di def ci mbay loo xamante ni kenn mënu ko euh, kenn mënu ko euh, maanaam jox gëddëm mhm. bu doy fii ci biir réew mi cest baykat bu fekkee ni dimbali ko ci réew mi doomi réew mi rek doy nañu réew mi. Mm-hmm. du ci wàllu ceeb. jéegaani. du ci wàllu yeneen pepp yi waaw mm-hmm. wax ni bu ñu taxawaloon Maroc taxawal Sénégal man ma ni leen avec li nga xamante ni nit ñi la ñu bayee nii mënuñu taxawal Maroc taxawal Sénégal. mu mukk ndax ndax man dama wax ne taxawal Maroc taxawal Sénégal du moom mooy mooy faj. góom bi mooy faj seen góom waaw Maroc ak Sénégal dama wax ne nañ leen bàyyi ñu dugg mhm. bu Maroc duggee Sénégal dugg ñu jël doomi réew mi jox leen li li ma li may mébét mooy ñu jox leen moyen ñu bay qualité bi nga xam ne moom la Maroc di indi bay qualité bu dàq bi nga xamante ni moom la Maroc ak Sénégal di indi bu Maroc ak Sénégal ñooy fekk ci marché bi qualité boo xamante ni moo dàq seen lëjum daañu delloo seen bopp mhm. te kenn delloo leen. parce que Maroc ak Sénégal seeni relation ñoo jutu ak Mauritanie ñoo jutu su suñu jutu. kon nañ jox doomi réew mi ñu bay qualité. boo xamante ni bu ñu ñëwee jóge Maroc indi seen bagage fekk doomi réew mi di bay qualité. bu dàq seen waaye tamit ah. waaye tamit euh, euh, dinaa xaw yàgg ak yow tuuti gis nga Adama am na lu nga xamante ni daf ko souligné léegi mu di lu am solo. Hmm. yéen da ngeen di jëlandoo bayandoo lépp mu ñorandoo lépp su ko defee dafay naan gàññi euh, ci biir marché bi du am dootul am njërute te su ko defee loolu day delluwaat ci yéen day mettiwaat ci yéen ce que loolu jéem ngeen ko saafara ci seen biir yéen ñi nga xamante ni yéen day baykat yi. effectivement loolu jëm nañ ko saafara mais ci ay mbootaay yoo xamante ni gi gisante. su fekkoon ni mbootaay yoo xamante ni dañuy gisante ñu ñu ñuy yogoo jow ak yogoo maanaam bu fekkee ni tey man dama war a récolter ci Kër Maseen ma jokkoog waa Rosso ni leen tey waa Kër Maseen ñoo moom récolte yéen téye leen ni ngeen war a récolte ba ñuy jaay suñu bagage wala nu téye suñu bagage ba ngeen jaay seen bagage comme doon waaye amul amul amul gisante suñu biir loolu nag ñu fas ay mbootaay ci wàllu état bi ba tey dajale ay ay kuréel. Mhm. dajale leen loolu responsabilité mhm. boobu Adama damay ñëw ci yow xam nga da nga da yow lii may euh, question bi ma posé nii yow yaa yaay ki fi njëkk a souligné mu di lu am solo lool maanaam ngeen bay légume bi yëpp a ñorandoo ni gàññandoo léegi euh, euh, responsabilité ça revient ak qui kan moo war a jël responsabilité maanaam organiser à ce que bu ngeen bay yéen ñëpp. Euh, ku nekk mën a jaay njaay mu jar ku ne mën caa gis boppam kan nga yaakaar ne tey ji moom moo mënoon def organisation boobu kooku baykat yi war nañ ko mën a def baykat yi seen bopp ñoo ko war nañ ko mën a def mhm. wante tam ñi yori wàllum mbay mi war nañ ko mën a def maanaam waa kër jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbay dégg mbay mi war nañ ko mën a def mhm. ndax bu ñu ñëwoon par exemple xool ni par exemple waa côté Rosso mhm. yéen bay leen lii ak lii ak lii mu bu jëlee beneen côté itam ni leen yéen lii spéculation yii ngeen di bay boobaa li ñuy bay dana xaw wute mhm. mais léegi baykat bu nekk day xëy rek jëndi ay potam mhm. jiw xamul keneen ki li mu jiw mhm. ñoom daal xam na ni ñooy ñorandoo ndax produit yi dina dinañ fekkante si marché yi ah, su ko defee du am njërute su ko defee du am prix prix bi wàcc donc loolu loolu problème de communication la problème de communication bi au niveau de baykat yi dafa am ak ñi nga xam ne ñoom lañu dégg parce que ñu dénk bay ñun du gisu baykat yi gisuñu leen. koo gisul nag mënoo waxanteeg moom. te wóor na ma ni képp ku boo jógoon fii dem seeti leen balaa nga leen di gis di nga sonn. te boo leen gisee itam. est-ce que dinañu dégg sa wax buñ la dégloo buñ la uh-huh, boo génnee fàtte nan donc maanaam il faut il faut ñu def ko priorité daal. Mm-hmm. il faut ñu jiital ko. teg ko ci kalam. Mm-hmm. te moderniser ko encore. Mm-hmm. moderniser parce que ñun mënuñu nekk. depuis cent 1960 wala depuis suñuy maam yi bay mi doon bay ñu ko ne di ko bayee itam. Mhm. moom moo fi am ba léegi waaw ba nu nekkee xale noir et la ñu amoon tey léegi en couleur. Mhm. ba nu nekkee xale téléphone yi simple la ñu amoon léegi Android moo am. Mhm. donc il faut ñuy avancer. avancement il faut ñu koy def ñun instant bii nii fi nu nekk ñi ngi apporter benn touche neuf bi nga xam ni xëy na bëriwul ñu koy def mooy benn système bu ñuy wax système goutte à goutte. nga xam ne ay raako la rek yi nga xam ne pepp bi da koy def. da ngay ubbi robinet bi rek muy mu arrosé boppam. Mhm. donc kooku dina la permettre sax yow baykat bi di nga am temps wu toppatoo sa jardin di nga am temps wu defi leneen. Mhm. mais boo bëggee xëy ba xëy ngoos-ngoos tooyal tool bi yëpp fekk yow fi ngay fi ngay bay fi sax. Mhm. fi ngay bay fi sax tooyul mais fa beneen partie tooy na. xam nañu ñëpp bu dee bayum kanaal wala bayum bionnage parfois canal yu toj ëpp la doole sax. loolu dan koy gis. donc nan moderniser la chose. nan ko moderniser nanuy nanu créer des écoles de formation professionnelle ci wàllu agriculture mhm. su ma juumul defe naa ni benn moo ci am ci Mauritanie su ma juumul mhm. mooy NVA bi nekk Kéhéti mhm. war noonu def Nouakchott war na mën am benn Rosso surtout waaw Rosso war na mën am benn ndaxte Rosso ISET a fa nekk ISET ñi am bac ñoo fay dugg mais ñi amul bac war nañ leen tam wutal pexe loolu ci loolu am man mi yàlla def na ni ma def benn formation ak benn euh, ONG bu nuy wax GRDR. Mhm. benn projet bi nga xam ni Union européenne moo ko. kii woon moo ko financé woon. en mhm. même partenariat avec euh, ministère de la jeunesse. Mhm. ndax se man bay dam ko bëggoon mais amoo woon xam-xam bi. te xam naa ni métier moom mënoo ci avancé te amoo xam-xam. ndax investissement loo investir investir investir boo ci xamul dara sa investissement si zéro la jëm. day day day nax xëy na def naa ay formation ba nu defee formation pare ñoom tam seetaanu nu dara. Mhm. yàlla def na ñu ngi ñuy jàppale. ci en de matériel. Mhm. instant bii nii ñu ngi taxawal benn ferme intégrée au niveau de PK 17. Mhm. bi nga xam ni pareegul mais ñu ngi si installation yi. fan yii la nu jox ay baraak. Euh, euh, est-ce que superficie bi yaatu na tamit pour ngeen mën ci bay lu bëri. waaw foofu xam nga bayum Nouakchott da bay ci lépp. clientèle bee demee noonu. parce que dafa jege marché bi. melul comme bayu Rosso wala bayu feneen. foofu quantité bu bëri ngay bay. ndax ñun suñu campagne bi passé soble loolu bayoon ak kaani mhm. instant bi ñu ngi ci bayum gombo mhm. donc fii nag au niveau de Nouakchott euh, cinq mille mètres euh, quatre mille mètres carrés la mhm. euh, ñi ngi koy aménager bëgg nañ ci def benn poulailler bu ndaw bi nga xam ne day nekk benn chaîne de valeur lii jóge déchets yiy jóge ci ci yi day dem directement ci tool ci tool bi bu demee ba ci kalam tamit ñu def ci li nga xam ni mooy la transformation parce que ñi ngi wax tamit légume dafa bëri mais dañ ko war wutali pexe. man man légume dafa bëri boobu euh, yenn saa yi daf dina ma xaw jaaxal tuuti ndax euh, bu ñu delluwaatee tuuti ci ginnaaw euh, jamono ji nga xamante ni Covid 19 duggoon na fii mm-hmm. ku ne gis na bi ñu tëjee frontières yi. Euh, waxoon nga ko léegi. Mhm. wala junjoon nga nu mel noonu. Euh, bi ñu tëjee frontières yi légume dafa raar benn kilo soble lu cher nga ko doon amee euh, supame lu cher nga ko doon amee navet lu cher nga ko doon amee est-ce que légume dafa bare boobu du ci ay kàddu rek la yem tamit. waaw légume dafa bëri. am na benn wala dafay am ay jamono rek dafay am ay jamono ay jamono rek ay jamono dafay bëri. mais ci bëre boobu noonu war nañ ci créer leneen benn chaîne de valeur bi nga xam ne transformation. donc dafa am benn période ba nga xamante ni ci ngeen di bay bay. par bay parfois dafa dafa bi tamit da ciy da ciy joué. Mm-hmm. tamit euh, jeune entrepreneur am na yenn risques ñu bëri duñ ko jël. Mm-hmm. donc euh, bu bëri war nañ ci war nañ ci par exemple ñoo ngi ñoo ngi commandé ay lu mu tudd marché douane. Mm-hmm. marché douane carotte la. karool la bu nu def ak benn mélange bi nga xam ni kooku ñun ndaw réew yi mën nañ ko mën def. donc loolu tamit même chaîne de valeur boobu noonu état da ci war da ci war pousser bu baax. Mm-hmm. sur la domaine de la transformation et de la conservation. Mm-hmm. am na solo. Mm-hmm. Euh, euh, ma ma dikkaat yow euh, li nga xamante ni moom mooy wàllu suuf. tamit yéen euh, gëmuma ni am ngeen problème mu suuf beneen xëy na jàmbat ngeen di am mais euh, du problème mu suuf wala su fekkee tamit mën nga ma ci dikkal tuuti ci li nga xamante ni euh, ndax yow dañu tàmbalee tàmbale nga indi ma ay jàmbat xam nga moom émission man bëgguma koy bëgguma ku ma koy dooralee jàmbat waaye comme na nga commencé jàmbat rek ñu ànd ceeg yow problème mu seen problème mu suuf exact nan la demee foofu est-ce que yéen tey jii doomu Kër Maseen bu ne mën na gis boppam ci wàllu mbay ci jëm ci wàllu suuf ku ne tey ji am na lu mu boppam suuf dañ ko am juddoo ci suuf soo xamante ni ñoo ko moom suñu maam doon ko bay mm-hmm. ñoo leen ko bàyyi mm-hmm. mais tey fi tey ñu yow gisutuñu suuf suuf tumuranke ci Kër mm-hmm. suuf am ñu ko amee doomi Kër Maseen mënut ci jot pour se dire ci naka am nañu suuf soo xamante ni ñàkk kayit wala ñàkk defaral nu ko. voilà loolu nu ko aménagel. loolu loolu loolu loolu moom dama lay permettre. nga jàkkaarloog euh, jiitu réew mi Mouhamed Cheikhoul Ghazouani muy defaral leen seen papier defaral aménager leen ko su ko defee dina mën a wàññi chômage des jeunes. waaw dama lay dama lay xamal rek ne mhm. am nañu suuf soo xamante ni tey ci wàllu ceeb ku ne dégg nga ku nekk kuy ku nekk kuy bay ci wàllu Afrique wax ma la sax ci Mauritanie rek ci Afrique. leer na la ni tey noo jëkk bay ceeb ci wàllu Mauritanie Afrique de l'Ouest sax la ñu wax mhm. ni fa lañ njëkk tubaab yi njëkk essayé ceeb muy Tifaas mhm. kon suuf soosu tey waroon na doon loo xamee ni nataal bu mag la ci Mauritanie moo mhm. doon doon patrimoine national voilà kooku <laughs> suuf soosu tey nga xamante ni le premier président de la république lekk na ceebam añek ci Kër Maseen foofu ba tax mu kontaan dem indi matériel teg ndax ceeb boobu mu lekk foofu ci ceebu Tifaas Tifaas boobu ma lay wax nii. 1958. Mhm. waaye waaye waaye loolu lan mooy suuf soosu euh, lan mooy problème am tey. problème léegi dafa dafa yàqu suuf si ndox nangu na ko. Mhm. Tifa barax bi nangu mënatuñ ko bay fu ne taxaw nii fa jooy pour ñu defaral ñu papier. aménager am aménager lu ko mais mais mais mais aménagement léegi il faut nga am kayit. Mm-hmm. pour ñu defar ñu aménager la. Mm-hmm. léegi boo dugal moom mosul am kayit. mës na am yi maam yi ñoo ko yoroon réer na. léegi tool boo xamante ni bay nañ ko bay bay bay bay ko centaine des années. Mm-hmm. ñëw at yi mujj yi bayatuñ ko 88 xam nga lañ ko mujj bay kon tool boobu am na borom. suñu suñu ñi ci jàppale woon defar nu defaral nu ko. moom kay am na borom ndax ku ne xam na ni yéen a ko. waaw waaye problème bi mooy comme ko waxee la ñu defaral nu ndax jeunes yi. taxaw ni ma pour bay am na yeneen suuf yoo xamante ni aussi noonu la mel presque. bari na bari ngeen bari ngeen ay suuf yu mel noonu ñu dafa am problème mu papier. gàllankoor loolu moo ko gàllankoor. Mhm. am problème mu papier foo taxaw jooy ñu lay digal digal yoo xamante ni mënoo mënoo. te te te jamono ji euh, pour mu gën a leer euh, suuf su amul papier benn machine du fa nangu dugg di la ko. aménager voilà mhm. laa doon bëgg wax léegi ne. su fekkoon ni léegi damay dugal engin ci ci ci benn espace terrain. Mhm. day day am autorisation autorisation bi benn ñu koy defar da ngay indi kayitu tool bi. kon Tifas pour ñu aménager ko il faut mhm. nga am papier. mais ca bu muy leer seen suuf la yéen a moom moom. Tifas amul litige xëccoow leen ko ak góor ak jigéen yéen a ko moom ñu ñuy ñaan rek euh, comme euh, ni mu ko waxee rek euh, ba tey ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxaw ci wàllu lutte contre le chômage des jeunes mën nañ leen jàppale ci côté googu tamit ndax ay ndaw yi nga xamante ne tey jii am nañu capacité bi am nañu ndëgërlaay bi am nañu taxawaay bi waaye lan moo leen tënk muy doole doole bu mel nan doole bu ñu bayee ngalawaay nañ leen góorgóorlu jàppale leen rek ci aménager leen seen suuf soosu nga xamante ni ba ngay tëdd bu ñu leen ko aménager loon tey jii wala ñu defaral ay papier xëy na sax ñoom daanu mën a góorgóorlu ba aménager ko seen bopp mën caa bay euh, di ca jëriñu euh, Mouhamed bu ma dellu siwaatoon tey ji ci li nga xamante ni moom mooy wàllu mbay ak lépp la nga xamante ni yéen a nga ci taxaw tey ji euh, sànq junjoon nga fii ne da ngeen am benn benn benn mbootaay ba nga xamante ni moom la waa dëkk bi yëpp di bay est-ce loolu tey ji jàpp nga ne tey ji loolu dina dundal waa dëkk bi ba ngeen dem di ca jaayiwaat mbootaay boobu taaw ba léegi jël ni superficie vingt hectares presque vingt hectares ci benn zone di ko bay mhm. bokk teg yeneen dix hectares ci beneen zone di ko bay sa à dire trente hectares de trente hectares mhm. xale yooyu ay jeunes la ñu yoo xam ne dañuy takku ne ñoom su leen gouvernement jàppalee dañuy bay su leen gouvernement jàppalewul dañuy bay mhm. jël seen matuwaay daal di def muy dëgg ci ñoom jéemuñu jé yéeg jéegaani ji fen jéemuñu jël gaal jéemuñu dem extérieur mhm. mbay moomu moo di seen patient mhm. kon li ñuy produire foofu marché sosim bi xam na ko marché sosim tey boo fa taxawee xam na oto yi jóge Keur Massène di ñëw te ñooñu xamuñ sax gouvernement mhm. man bi ñu ma invité tey jii ci télévision dama dama am cawarte bàyyi li ma jàppoon dama bàyyi li ma jàppoon ndax ñëw wan leen ni ñun dañuy bokk ci réew mi bëgg soqali réew mi ci mbay te loolu moo di sunu sunu sunu sunu taxawaay boo ñëwee fi ñuy dëkk na le xale yi ñi nga xamante ni liggéeyuñ tu ngor gi ñi nga xamante ni seen njàng yàqu na ci diggante bi ñi nga xamante ni jàng nañ ba pare amuñu li kii ñëpp ñu ngi jubli ci mbay mi di ci def loo xamante ni expérience bu bu mat sëkk di ci génne li ma lay wax rendement te gis niñ ci seen bopp bu baax waaye waaye li ma lay wax rek nee nga mu ko jàngat wante nun daanu jàngat parce que nun duñu yaakaar ni réew lii comme sama naataango wax ni réew mbay moo koy doxal teg ku ne xam nga ni. mbay ak doole ay adduna bi réew yi ci gën a avancé mbay ñoole ñoo ñoo ñoo ñoo ko tax mu avancé. Mm-hmm. te tey fi tey war noonu xool ni li fi xewoon daaw tamaate jar na fi temps lii jar na fi temps ndax lan ndax mbay moo xamante ni amul suite. mbay moo xamante ni borom dafa dem ba ci yàgg mu am lu ko gàllankoor mbay moo xamante ni su amoon ku koy jàppale comme ni nga xam ni day bare ci yenn période yi ñëw président bi fan yi am na solo lool ndax courant bi mu indi électricité bi nga xamante ni doon na ko intégré am na solo trop ci mbay mm-hmm. su fekkee ni jox nañ ko béykat yi defaral leen ci ay chambre froide mm-hmm. yoo xamante ni jamono yoo xam ni lëjëm day bare ñu réserver ko fa conserver ko ñu conserver conserver ko foofu bëgguma sax làkk tubaab parce que émission bi wolof la ñu conserver ko foofu nga xamante ni période yoo xamante ni euh, day mel nii nawet affaire bi jafe ñu génn ko marché bi am nit ñi am lu ñu dundee du jafe mais baykat bi suñu ko defalulee yu mel noonu day bay di tóor jamono yooyu xam mooy jamono yooyu da ngay bay di tóor su ma dindee tey jii camion pataas pataas sax mën nañ ko réserver ba tey du gaaw yàq su ma mm-hmm. dindee camion euh, nu mu tuddee ti naaje tamaate tamaate yeneen xeetu légumes yi nga dindi camion mm-hmm. bu nu ñëwee foog kenn ci nu tóor wala nga tóor sa gen wala ma tóor sama mais su fekkoon ne am nañu ay chambre froide yoo xamante ni dañ koy conserver foofu kon du ñu tumuranke moo am en européens yi noonu la rawee du ñu tóor dara. du ñu sànni dara kon ñëw par exemple ci euh, wàllu électricité énergie am na solo trop ci baykat su fekkee ne nag boole nañ ci baykat bi am na ci solo trop. am boole nañ ko ci ndax yéen a ko tax jot nag yow tamit. waaw voilà am na solo euh, ma dellu siwaat ci li nga xamante ni moom mooy sa wàllu taxawaay yéen ci euh, li nga xamante ni moom mooy wàllu légume rek ngeen di ngeen di bay. waaw pour l'instant nag ci foofu la ñu gën a yëngu yëngu. Mhm. kañ ngeen ci tàmbalee fi ngeen toll nii. Ah, mi ngi am at ak lu tekk. Ah, ba nu paree formation la nga def mais nag doo noon na li nga xam ni ñu ngi si doon ñu ngi si doon li nuy wax auto auto s'auto formé mhm. parce que ñu ngi si doon jàng ci wàllum internet di si wut xam-xam. Mhm. mais amul woon opportunité wu def ci formation. ba daaw la am benn opportunité bu ñëw ñu def formation bi donc ba nu defee formation bi pare. ñu nag ndegam xam-xam baa ngi fi. lancé wu rek a des. campagne bi nga jot a def ndax euh, gis nga ci sa bopp. waaw gis nañ ci suñu bopp gisuñu suñu suñu bopp. ci naka waaw parce que c' est première expérience la woon. Mhm. donc euh, mënul woon yomb. waaw jëlbeen bu nee day jafe waaw mënul woon yomb. Mhm. mais jàngat nañ ci lu bëri. Mhm. Ah, bon ba prochainement dinañ gën a xam dinañ gën a xoolaat parce que ren xaw nañu tardé tuuti. xaw ñun ñii suñu bopp xam na ni xaw nañu tardé. donc loolu xaw nañu créer ay tuuti gàllankoor. mais baykat bu nekk daal moo avancement la bëgg. dëgg doxal dëkk dëgg bi la bëgg. Mhm. te benn affaire dafa am. mooy mooy que ni administration mënul doxal dëkk. volet entrepreneuriat dañ ko bëgg dañ ko war privilège ndax ñun defe naa ni depuis quatre année quatre vingt yi ci la problème chômage bi yokk. Mhm. jëm deux mille bi. te day gën a yokk ndax administration dafa fees. benn beneen problème beneen solution la war def cest dire que mu nekk euh, bay euh, que mu nekk bañ bay euh, dañu war maanaam di chom dogguma la sax ci li ngay wax rek laay rebondir un peu chômage bi tamit est que yaakaar nga ni sa moroom mu yeneen moromu jeune xalaat bi nga am tey jii ne damay delluwaat terroir wala damay delluwaat dem defi li nga xamante ne moom mooy mbay est-ce que yaakaar nga ni sa yeneen moromu jeune am nañu esprit boobu am ñu ko ci am mhm. am na ñu ci amul itam waaw du ñëpp mm-hmm. moom ñëpp moom mënuñu bokkee xalaat mm-hmm. waaye tamit ñëpp mënuñu liggéeyandoo ci administration tamit loolu la ñëpp war a xam ñëpp mënuñu liggéeyandoo ci administration ñëpp itam mënuñu dooni baykat mm-hmm. du benn du bayee parce que boo ne agriculture day dugg ci biir élevage mi ngi ci man xool naa que ni ah man de wax dëgg yàlla bay mi du sama domaine du demoon bi nga xam ma dugg ci élevage bi élevage ci biir domaine la bi nga xam ne day dugg ci agriculture te am na solo loolu yëpp ci wàllum lekk la nit ki daal man pour man looy lekk yaa ko war a defal sa bopp. ñun tey dama la eh, yàlla tere yàlla tere marocain yi bu ñu xëyoon tey am ay jafe-jafe ki Mauritanie bu leen neexee bañ ñu bañ ñu. bombarde amuñu ko sax waaye Covid bi jamono Covid ku ne gisoon na mu fi mel damay wax rek. Hmm. loolu doy nañu loolu doy nañu exemple. waaw hmm. mais bu ñu amoon jafe tey bu leen neexee bañ ñu bombardé nan tey seen i liggéeyam rek xiif dañ nu rey. du ah. mu ne la déedéet bu nu tëyee seen i légumes xiif dañ ñu rey. Mhm. loolu parce que gis nañu su kii bi do gis nañu exemple bi si euh, si Covid bi. ba nu mhm. tëjee frontière bi. Mhm. nee naa la kilo tomate bu demee bay jar li doon jar cent cinquante. dem bay jar trois mille. li nga xam ni gën gën fee cher essence. te xam nañ essence daa cher. donc nan moderniser affaire bi créer des centre d'insertion pour les jeunes. loolu rek mooy moo mën moo mën régler solution. jeunes yi tamit nan leen yombal suuf. ñun ñi fi ñuy moo moomuñu ko da ngay mën nga loué xëy xëy waa ji ci ay wax lay ci ci ay wax lay ci ay contrat c'est-à-dire que ay contrat verbal lay doon mën nga ko defal mu gis ni ah suuf bii de am na rendement année prochaine mun la mun la damaa sool sa bu yif loo foo leen di bujje yifam la do da ci ciy da nga ciy xeex ak moom da nga koy bàyyi ci seeti leen toujours am ci diggante baykat ak ñi nga xamante ne ñoom moom suuf waaw am na solo lool am na Euh, Mouhamed euh, su suma dikkaatee yow ci li nga xamante ne moom mooy wàllu mbayum ceeb bi hmm. yéen seen mbayum ceeb naka lay euh, naka ngeen koy bay ci financement la wala yéenay yokk ci seen poche bayal seen bopp wala nan la fay demee noonu. waaw ñun pour le moment ci jamono yi nga xamante ne comme ni mu la expliqué ni la suñu suuf dañ ko mënul jot suñu village Kër Massène 74 hectares la ñuy bay ci. waa waaw 74 yooyu wala 10 hectares yooyu nan ngeen koy bayee seen poche ngeen koy bayee maa ngi ñëw 74 hectares yooyu ñoo ngi koy bay ci benn euh, projet bu ñuy wax Bellera waaw projet la boo xam ne ñeenti coopérative ñoo ko ñoo ñoo ko seq mhm. ñeenti coopérative yooyu ñun am nañ ci benn boo xamante ni 74 hectares la mhm. la am 74 mhm. hectare presque dëkk ba am na ñoo xamante ni eh, amuñu ci sax waaye euh, banque moo koy financé financé état bi ñoo koy financé mais financement boo xam ni boo boo paree da ngay delloowaat li ñu la joxoon. Ah, waaw ndax atte bor fay fay. Mhm. maanaam dangay ngay dañ lay financé ba nga bay bu période bi jeexee nga daal di fay. Oh, loolu kay ndimbal la tamit bu jógee noonu da nga ma laaj loolu du ndimbal sax. ndimbal la ah ndimbal la nag xëy na mën nañu wax ne sakkanul ne ndimbal la ba tey parce que parce que sama benn hectare bi soo ma joxoon ne ma kaay ma financé la mais góor góorgóorlu bu déwénee nga financé sa bopp loolu moo ma gën gënaloon. bu doon sama sago ci naka ci naka nga jox ma ni ma yow tey ji sa intrant. Mhm. intrant yëpp laa lay jox lii. mais lan mooy intrant. intrant boo ko déggee mooy li ñuy def ci tool bi. Mhm. jëm ci engrais jiw beeg waaw engrais ci mu gën waaw mhm. boo ma joxee. ne ma léegi comme yow amoo ay tànk dama lay defal ay tànk mais bu subaa nga dem ak say tànk maanaam intrant bi mu lay jox. bu déwénee boo demee ba bay na nga dindi la nga ciy dindi mais intrant bi mooy di sa capital mooy sa fond de roulement mm-hmm. loolu tekk bu déwénee nga financé sa bopp mm-hmm. loolu dàqul woon benn hectare nga may financé bu déwénee nga ñëw jëlaat ko bu déwénee nga delloom est-ce que li di bay tamit euh, soxla na tamit financement bu bëri boobu eh, eh, wala comme ni nga ko waxee rek gënul woon ñu aménager leen seen suuf ba nga xamante ni ba ngay tëdd bu doon siñ sago borom borom bitig mbagg bu ne grossiste nekk ci waaw <laughs> borom borom kii bu ne grossiste moo nekk ci xelam mhm. cest à léegi euh, agro business maanaam ñi ñuy woowee agro business mhm. jël suuf si ay milliers de hectare di ko bay mhm. yow amoon lu dul benn hectare suuf si nekk foofu nga moom ko say maam moom ko amoo possibilité yoo ko defee waaye ñoom am nañu doole te xëy na waaw am nañu doole mais tey ji bu bu fekkoon réew mi dafa jaar yoon dëgg-dëgg ñu doxal ko jaar yoon bëgg réew mi avancé soxlawul sax ñun ñuy agsi ci état bi ndax soo amee sa mbokk boo xamante ni am na maanaam 600 hectare tey ji waroon na gàdduwaale borom 20 hectares du dara ci moom waaw ah? loolu loolu loolu euh, biir euh, nu ñu koy waxee sax pootu biir kër la xëy na mën nañ ko régler ci biir ci ci ci ci biir kër waaye bu ñu dellu see ci li nga xamante ni moom mooy seen nekkin yéen euh, comme ni nga ko waxee euh, ne tamit bu ñu waxee ci waxu ci wàllu ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa agro ñooy agro business yi hmm. maanaam borom doole yi toujours tamit dégg nañ yéen baykat yi da ngeen di jàmbat que ni ndimbal bu ñëw xëy na ci ñoom lay njëkkee ñoom ñi nga xamante ni xëy na soxlaw ñu ko te yéen ñi nga xamante ni yéen yéen miskin yi est-ce que loolu di nga ma ko confirmer wala. ndax yàgg naa di ko dégg laaj laaj laaj bu am solo. bu mhm. boo xamante ni lu ma xam la. Mhm. mooy tey fi tey bu jëwriñu bay bi doon ñëw sax nun duñ ko gis ci ñoom lay yem gis nga. Mhm. jëwriñ ba xamante nii dafa war ñëw seet baykat yi ko ci gën a tuuti ba ci gën a mag bu ñëwoon tey jii ñiy bay lu bare la ñoo koy dogale. maanaam bu ñu doon dimbali sax baykat yi ñooñu la ñuy dimbali ñu gën ñu tuuti. ñu feebal ñi nga xamante amuñu seen loxo jotu seen gannaaw mhm. ñooñu duñ ci jot te loolu moo am léegi ci réew mi mhm. borom doole yi ngi dimbalante seen borom doole daal moom la ñoo di teeru mhm. ku amul doole doo teeru loolu est-ce que est-ce que est-ce que seen ñàkk fësal seen bopp wala seen ñàkk jëmmal seen bopp tamit yéen waralul li ni mel xam nga fësal sa bopp ci réew moo xamante ni gëstu ba day yem ci ñenn rek ñenn kenn du leen jëm gëstu maanaam mhm. réew maanaam réew réew mhm. lu ko dalee ca ñu tuuti ña mhm. ñu teg ci ay ay maanaam commune boo demee commune day njaago sous préfet moo fa nekk sous préfet boobu war na xam ñiy bay lu bari ak ñi bay lu néew ñëpp nag voilà ñëpp de même que boo ñëwee préfet war na xam ñi bay lu néew ñiy bay lu lu bari ba nga xamante ni bu kilifaam doon ñëw tey war na man dajale njaboot ñi bay ñëpp ni leen ni ko ñii ñu ngi ni ñooy bay ñii bu ñu ñëwee ku nekk ci ñoom ñu laaj la sa say say say problème nga wax ka mais su fekkee ni ñu tuuti ñi kenn du leen yëgal kenn du leen gestu foofu la mbir ma loolu tamit doy na foofu la mbir ma dalee loolu tamit doy na foofu la mbir ma dalee parce que bu fekkee ni ñu nekk foofu teewal fi réew mi du ñu wax ak ñu ndaw ñi. kon bu seen jëwriñ daan ñëw du ñu woo ñu ndaw ñi. voilà loolu nag du euh, dama lay xamal ne du mëbatu ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi Mouhamed Cheikh Ould Ghazouani ndax ca ba muy euh, door euh, di wut bopp réew mi li ko gënoon itteel mooy tey ji néew gi doole yi te ku ne gis na ndimbal yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmee ko ci néew gi doole yi. Mm. xëy na nag xëy na yéen seen bàkk mi ngi soog ay jóg. incha allah yàlla na yàlla def rek mu jot ci li nga xamante ni moom mooy seen soxla yàlla def mu jot ci li nga xamante ni moom mooy seen doléance ndax kat ku bëgg dimbali nit ku bëgg dimbali néegi doole war nga gëstu ana ñan ñooy néegi doole comme ni ko waxee am na euh, sama benn euh, tonton bu ko mësoon wax fii euh, Ahmed Tall Diagne ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy néegi doole yi xëy na dañ leen di fàtte sax yenn saa yi Euh, te ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom doole yi saa yu ndimbal ñëwee ci ci ñoom lay yem. Mm. loolu nag gëmuma ni njiitu réew mi santaane na ko te gëmuma ni te am naa yaqin ne bu ko déggee xëy na dina ko mën a saafara euh, ci ni mu gënee gaaw ndax euh, yi bëri na loolu li ko yitteel muy ñi nga xamante ni ñoom ñooy néegi doole yi. ci li mu wax ni yow selon toi boo doon buñ ci doon jëm wut ab solution. nan lañ ci nan lañ ci nan lañuy nan lañ ko indilee solution euh, ci li nga xamante ni moom mooy diggante agro business yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy déggu do néegu doole yi nga xamante ni xëy na kër gu ne 0,50 lay am du lañ koy waxee 0,50 du am na mm-hmm. waaw voilà tey ji boo nu doon jox proposition wala ci sa xalaat bu gàtt ndax ku nekk sa xalaat ngay ngay mm-hmm. waxee te dañ la koy nangul aussi mm-hmm. d'accord man pour man boroom agro business yi ñuy wax yi mënuma leen ŋàññi benn côté parce que non leen nga ñi sax ndax ñoom tamit ñi ngi ñi ngi liggéey ñi ngi ñi ngi participer ci koomu réew mi tamit ñi ngi ñi ngi ñi ngi liggéey ñi ngi def lu am solo mhm. dal leen koy nangu mhm. ñun nag borom bitiku mbagg yi mhm. li një li war a njëkk ci ñun moo ñu fexe déggoo déggoo ci ay kàddu te bañ bañ nekk nekkal fi sa bopp kese maanaam baykat bi nga xam ne c'est intérêt boppam rek lay wax. Mhm. Ah, bu gisee autorité ne man di sama sama tool. Mhm. na ni sunu tool bi te bañ ñun de sunu zone bi lan war wax. Mhm, bañ a wax sama maas ñun gi waaw tamit nan def beneen affaire. mooy nanu nanu nanu nanu formaliser ay kayit. kayit yooyu ñoo jafe nag. mën naa ne jafe na jafewul parce que man instant bii ni entreprise laa yor. bu tudd si agro business. am na ay kayitam. parfois opportunité mën na am sax bi nga xam ne du muri seen ay appel d'offre day am. Mhm. donc boobaa mën naa fa jéem a wutil sama bopp dara man tooguma di xaar état kese. Mhm. man damay yëngatu. waaw état xam nga dimbal bu ne. waaw ca fekk loxol borom mhm, voilà am na solo wuti nan wuti këyit. parce que maa ngi doon waxtaan ak ay jeunes euh, baykat yu nekk fii nii ci Nouakchott Gyros. ba ñu ngi doon bëgg taxawal benn kuréel. bi nga xam ne CA lan ko bëgg a coopération des euh, des entreprises agricoles. mi xam ni day regrouper les jeunes entrepreneurs dans le domaine ñooñu léegi daanu am benn force bi nga xam ni par exemple man bu doon zéro cinquante laay bay yow ngay bay zéro cinquante pourtant bay bu ñuy bu ñu boolee suñu zéro cinquante amaan na dina doon ay hectares. pour man loolu technique boobu noonu mën nañ ko def ñun tamit pour mu nekk agro business. buñ ko man ak man ak sama ji. moom zéro cinquante la yor man maa mu yore zéro cinquante. ñu xool suñu beneen waay bu yore zéro cinquante. ñu ne ah ñu ne suñu zéro cinquante yi nan ko jéem boole. même bu dee xëy na emplacement bi dana différent mais ñu liggéey en consortium bu ñu liggéeyee noonu xëy na dana tane frais yi dépenses yi dana dana wàññeeku dépenses yi dana wàññeeku te encore liggéey bi dana gën a jaar yoon. parce que nee nañ lu ñett euh, lu benn mën. ñett ka ko dàqal mhm. donc man pour man daal nan taxawaa ci nan taxaw ci loolu. ci wàllum kayit ci ak wàllum liggéey consortium. Mhm. boole suñu bopp. Mm-hmm. xam ni dëkk Mauritanie ñun ñoo ñun rek ñoo ko mën doxal. waaw absolument. surtout ndaw yi laay wax ndax du suñu papa yi wala suñu yaay yi nga xam ni. daf bay nañ seen waar ba seen waar ba pare. Mm-hmm. ñun jeunes yi ñoo woon doxal dëkk ci vallée yëpp nag. Mm-hmm. mais nan leen jàppale. nan leen jàppale jàppale lanu soxla. jàppale ci état bi. mais damay joxe exemple ci président ba muy ñëw Rosso. waa Rosso dañu dañ raxas. bale tëli ba def lu nekk président bi nit la ñu ay nit lañu mhm. pourtant poussière boobu ñun doomu Rosso yi doon dund mhm. balaa président bi ñëw te ñu woon bàyyi ko noonu ba président ñëwee gis ni Rosso nii la mel mhm. mais dañ ko peintiraat joué benn pièce de théâtre donc loolu loo yooyu noonu doxalin yooyu lañu war bàyyi dëkk bi di jaar yoon mais bu bu nu bëggee par exemple président ngi ñëw ñu bale defaraat président door euh, teg première pierre dañu bëgg première pierre am boobu noonu mu tegaat ci beneen tegaat ci beneen. Mhm. ba mu taxaw ba mu taxaw. ndax benn pierre rek. dina ko def wax dëgg yàlla ñu ngi koy bàkkee wax dëgg yàlla dëkk yi nu dëkk yi nekk su nee nañu Mourchid daal bëri na lu ñuy gis te premier pe. Ah. mais inauguration daal. ak Rasuwaani moom dina dina dina. Ah, am nañu yaakaar ci moom de tegaat pierre tegaat loolu la ñu bëgg parce que askan mhm. bee fi teg. Mhm. loolu la ñu bëgg. moom tamit askan bi la fi nekkal. voilà donc askan bee fi teg te askan bi loolu la bëgg. donc moom tamit ñi ngi koy ñaan jéego yi nga xam ni moom la tàmbali ah yàlla na ci continuer rek. incha allah incha allah euh, am nañu jot ne dina ci continuer te dina ci continuer euh, yéen li nga xamante ni moom mooy euh, seen wàllu mbay yan période ngeen gën a ngeen gën di bay yéen noor ak nawet yëpp da ngeen di bay ceeb wala. waaw ti ñun pour le moment nawet rek li ñuy bay. Mm. mooy li ñu expliqué rek ne la barewuñu suuf benn. pour léegi benn périmètre boobu la ñu am. Mm-hmm. di ko mënu di ko bay mënuñu ko di bay noor di ko bay nawet ndax bu la fa nawet ba fekkee ci noor bi dootoo ko mën bay nawet nawet. Mm-hmm. boo ko bayee noor léegi te am gàllankoor mu xaw a tardé dootoo ko bay. doo ko mën bay nawet ndax yàq yu bare. Mm-hmm. Euh, ak euh, taw bi mën na la fa fekk dootoo ko mën bay nawet. moo tax benn te barewul surface la bu ndaw. boo fekkoon am nga ñaari mm, place ñaari tool. daa nga waaw ngay aw awlante bi waaye dañu am ay place yoo xamante ni dañuy occupé wu nu ko bay kenn joxuñu ko jotuñu ci. jotu leen ci boobu mooy lan. Euh, jotu leen ci moom seen seen suuf la yéen a ko moomal seen bopp mais amuleen leen doole bu ngeen ko liggéey ay suuf yoo xamante ni suñuy maam ñoo ko daan bay waaw yéen a ko moom loolu moom kenn na ko yéen a ko hmm. moom adduna bi yëpp xam nañ ne yéen a ko moom xam nga ni hmm. léegi ku amul doole hmm, bay doo bay voilà jafe-jafe adduna tax suñuy suuf mënoonu ci jot te ñax bi yàq na ko ñax yàq ka garab yàq ka mënoo too ko mënoo ko defar soo. jiitu réew mi dina dégg dina dégg sa sa sa message. incha réew mi day wax dëgg yàlla euh, yaakaar noonu ci moom ndaxte plateau bu mel nii man ma ko def kon ku ni la kaay ndékki bu la diggalee añ kon war nga man euh, gëm ko. waaw ndaxte mhm. gis noonu ma ngi jéem a yëngu ci mel nii. Mhm. surtout mbay mi nga xamante ni wax na bërki demb déglu naa discours am ci kon noo ngi am yaakaar. Mhm. talal ko nag suñuy loxo talal yàlla suñuy loxo talal su talal ko moom suñuy loxo pour que mu mu mu def ci mm-hmm. te bu ci defulee làmbaay dana ñaaw ndax adduna yëpp daañu jékki-jékki kenn dootu jox li ngay bay ah kenn dootu jox li ngay bay adduna yëpp daañu taxawal li ñuy bay ci seeni réew ndaxte eh, jamono moo de moo demee noonu daaw am nañu benn benn benn exemple bu boo xamante ni ñëw na mooy mbas mi mhm. te adduna yi de adduna bi mu ngay yokku mhm. nit ñi ñi ngay yokku réew yi dañ soxla li ñuy bay mhm. kon mbay mi rek vale bi nga xamee nit ñi dafa jàpp ci roosa ba ba Kër Massène jëm ba Bogué ba yi su fekkee ni defar nañ ko rek mën na autosuffisance ci ceeb ak ci maraîchage la mën na gérer réew mi ba doot ñuy jéggaani ji. am na solo euh, yéen euh, foofu au niveau de Kër Massène tamit euh, gis nañ ne nawet bi da ngeen di bay légumes jeunes yi macha allah ñoom ñëpp dañuy summeeku di di bay li nga xamante ni moom mooy légume ndax tamit seen bay moomu seen yëngu boobu ñuy yëngutu ci wàllu mbayum liggéey bi tam légume bi tamit am ngeen ci ay jafe-jafe yi nga xamante ne tey ji xëy na bu ñu leen ko saafaraloon di ngeen gën a mën a avancer ci li nga xamante ne moom mooy seen wàllu taxawaay. mbayu la jëm nawet dafa metti dafa dafa doon loo xamante ni expérience la laaj bu bare. Mm-hmm. ndax ni muy taw baaxul ci ci ci lëjum bi daf koy gàllankoor. Mm-hmm. surtout yi nga xam ne dañuy law comme naaje. ay suppame ay suppame. bu tawee baaxul bari feebar bari mm-hmm. mais mais am na yeneen yi nga xamante ni nawet bi baax na si tamit am na yeneen yi nga xamante ni nawet nawet amul lu mu mu baax ci maraîchage maraîchage ku ni la yëpp même gombo bu muy wax nii léegi mhm. nawet bu fa fekkee maanaam buy fleur bëccëg bu tawee man naka yàq mhm. waaw waaye dafa gën man muñ mhm. mais nawet boo gisee lëjum manqué taw bi mooy gàllankoor lu bare Ah, ok d'accord ak tàngaayu donc loolu mooy tax euh, légume bi di am période bu muy bëri ak euh, période bu muy ak tàngaayu suuf si xam nga ndaxu taw bu wàcc ci suuf rek tàngaay ñëw mhm. yooyu maraîchage bëgg ko maraîchage sedd la bëgg mhm. lu mu mooy tax bu période sedd ay mois décembre ñëwee maraîchage soxlawu sax nga koy toppatoo day day yóbbu boppam mhm. waaye comme mooy sunu liggéey dañuy rayante rek nawet bi buñ doon def benn dañuy def fukk pour que ñu am benn bu baax noonu lañ fay liggéeyee te feebar yi bare. ndax tàngaayu jàngoro yi jàngoro yi euh, gàncax ay puceron ay mouche plan ay yeneen. Mhm. yoo xam ne day téye gàncax gi. Mhm. muy muy muy maraîchage bi. Mhm. daal ceeb la gën a jëkk e-, e-, est-ce que ci ba tey ci xam nga bu njëkkaan daaw nañu gis waa ña daan na am ñi nga xamante ni ñoom ñun la seen xam-xam màccoon jëm ci wàllu mbay gi ñu doon ñëw di di gëstu si est loolu mi ngi am ba tey ci euh, ci ci tool yi. léegi mbay kenn jàngatu ko ñooñu ñëwatuñu. Hmm. wala suñu gox bee ñëwatuñu. ñëwatuñ fa kon daal yéen ay expert ngeen ci mbay mi am na am na ñoo xam ne ni ñuy représenté rek état bi. Hmm. Euh, maanaam. Euh, ñi nekk foofu ci wàllu représenté bi ministère de de développement rural. Mm-hmm. waaye seen. seen liggéey yëngu-yëngu daal barewul. jëmu ci mbay mi. ci mbay mi sax la mais seen yëngu c'est-à-dire nun daal lu nu mën wax ci mbay moo dina xam noonu ko léegi. Mm-hmm. léegi ku nu jàppale rek moom mooy. suñu ku leen dooleel rek mooy seen seen mbay moom xam nga soo loo juddoo ñu ngénte la ci. Mm-hmm. war nga mën xam. ñun duñ ci juddoo ngént ñu ñu ñu ngénte nu ci xam nañ ko bu baax waaye loxo yi jot te te mbay li ko tax mu compliqué léegi moyens yi nga xamante ni ñoo lay laaj soo ko amulee rek daf lay daf lay digal te moyens yooyu ñoom loolu laaj président bi nee nga ci loolu lay jëngu léegi na na na gestu baykat yi dana leen gestu na gestu baykat yi bëggee réew mi dem kanam bu bëggee réew mi avancé ba nga xamante diñ naan ki wiiw mhm. baykat yi lay gestu ñu bay fi loo xamante ni adduna du ñoo xëlli seen bët parce que ñun am nañu ndox am nañu suuf mhm. na ñëw jàppale baykat yi surtout baykat yi ndaw yi mhm. ndaw ñi nga xamante ni comme ni mu expliqué dañuy volonté ni ñoom daal ci mbay lañuy ñuy jublu mhm. waaw bu ñu leen jàppale daañu doxal bu ñu leen jàppalewulee allahu baqiya allahu wa <laughs> waaw dina leen jàppale dégg na de yaakaar naa rek ne dina am sax ku mën a dégg sa message eggale leen ko mooy mu jàppale baykat yi jàppale baykat yi ndax tamit euh, comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen mbay dafa doon la nga xamante ni lu la ci li nga xamante ni moom mooy suñu koomu réew euh, donc bu ñu leen jàppalee dinañu mën a bokk ci li nga xamante ni moom mooy yokkute euh, réew mi ak la nga xamante daf koy jëmale ci kanam bokk téléspectateurs yi ma leen di fàttali ne maa ngi dalal Mouhamed Sène di ab baykat jóge fa nga xamante ni moom mooy Kër Masène ak ki nga xamante ni moom mooy Adama Adama si moom tamit di bay li nga xamante ne moom mooy wàllu légume ànd ci ak ay moroom mu di lu am solo lool euh, donte euh, ci jamono yi ñu toll nii tey ku ne xam ne ni ñu ngi xeex ak ndóol waaye di xeex ak ñàkk xëyu ndaw ñi te suñu gisee ndaw yu ni mel euh, dañ leen di promouvoir maanaam dañ leen di gën a jàppale gën leen dooleel comme ni ñu koy waxee saa yu ne naan góor waaw góor du fooxali mbagg mais dina tax borom sawar kon nag ñoo ngi lay wax ne waaw góor nga gën a wëy ci li nga xamante ni moom mooy sa wàllu taxawaay bi dee ci li nga xamante ni moom mooy wàllu mbay gi euh, yéen bi ngeen tàmbali ba léegi gisagu leen benn subvention bu jóge ci nguur gi euh, li nga xamante ni moom mooy euh, nguur gi gis nañu ne ñu ngi doon dimbali ay ndaw ndaw bu ne la nga ne ña nga la ciy dimbali yéen ba léegi jotagu leen ci. waaw yàlla def na nag ren dénk yóbbu nañ fa suñuy kayit. Mhm. ñoo ngi seen tuba xam. Mhm. yàlla yàlla baax na yàlla sottil dara. Mhm. mais daal li woor ba wóor daal. ci euh, surtout euh, fi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñi ñuy woowee mon projet mon avenir. Mhm. yéen am ngeen seen projet dem ngeen fa. waaw yàlla def na que ni dem nañ fa ren. Mhm. ñoo ngi am yaakaar nag. yàlla baax na waaw mais nag mhm. ci jàppale bi tamit dafa am benn affaire bi nga xam ne dama ko bëgg leeral. mooy mooy mu bañ am kumba am ndey ak kumba amul ndey. kumba amul ndey. wax. xëy na président du moom mooy jóg di maanaam ni maa ngi joxe baykat yi. Mhm. xëy na dafa am mu koy jaarale. Mhm. te intermédiaire yooyu noonu il mu wut ay intermédiaire yu digne. Mhm. yi xam ne dañuy xool a ah, mérite dañu xool que ni kii de sama cousine la wala kii sama doomu nijaay la. loolu tànk mi ngi am rek affaire bi de ndax yow tey boo jëlee ay engrais nga may ka ki nga xam ni du baykat mu génn di ko wanteer. daf koy dem wanteeri rek. wut lu mu def ci poche lu wut lu mu def mhm. li may wax nii gis naa ko. am na lu leer nga wax te mhm. ñi ñi ko soxla ñi joxuñu leen ka loolooy wax ji. Mhm. affaire bi daal bu mu am kumba am ndey ak kumba amul ndey. na jaar ci yoon. transparence moom bu amee jeune entre jeune ñi bëgg nañu liggéey. bëgg nañu liggéey teewul nag nga ni jàng naa école am naa samay lijaasa d'accord loolu yëpp nangu nan ko say lijaas boo gisul foo liggéey doo jàpp ci li fi ne. wallaahi ba keroog ngay am leneen. Mm-hmm. man tamit damay ñaax ndaw yi. Mm-hmm. ndaw yi nan nan nan jël benn aspect mooy aspect de l'entrepreneuriat ci nan ci focaliser wu. boo jëlee <coughs> États-Unis bii nii wala Chine secteur privé yi ñoo ko doxal. Mm-hmm. secteur privé dafa baax ci dëkk. tamit entreprise euh, euh, privée yu ndaw yi comme ñi si yool comme sama bu yos ak sama yow si morom. Mm-hmm. ñoom tamit nan leen di gestu. Mm-hmm. nan leen di gestu bu baax. Mm-hmm. ñoom bëgg nañu liggéey encore tamit bay bi bay foog ñu moderniser kam loolu point boobu noonu duma ci mu jóg di ko wax. bay foog modernisation boobu lan nga ci wuññi noonu. waaw nan la nan nan nan lan ci war a taxawee. autant. sunu maam yi dañ daan jël ay gàpp di dóor suuf si ku ci tëdd ku ci tëdd pour mu jóg mu doon problème. loolu tey xëy na. loolu yéen amatu leen ko de. yéen kenn ci yéen gàmbatul kenn ci yenn pikkatul kenn ci yéen peelatul. déet am na ñu koy def ba léegi. Mauritanie li si ëpp sax noonu la ñuy def mais tey li ci pexe mooy que ni tubaab yi créé nañu li nga xam ni mooy des raako bi nga xam ni ñu ngi koy woy système goutte à goutte. Mhm. système euh, doguma la mais système goutte à goutte boobu est-ce que egsi na ci yéen ci wàllu li nga xamante ne moom mooy seen wàllu mbay. tuuti ma delluwaat tuuti ci gàbb ak piki boobu moom laa la jë junjëla la sànq président de la république su ñëwee pour ubbi campagne war na teg matériel balaa muy ubbi campagne ndax su fekkee ne yow dañuy ubbi campagne bay nga jóg di gàbb di pik balaa yéen gàbbatu leen pikkatu leen gàbb ak pik yéen seen ay machine yi ngeen yore gàbb ak pik mm. du fa jogu ko fa du fa sax jog tant matériel ñëwul gàbb ak picc du du fa jóg parce que yow su fekkee ni yow da ngay def ay bion mhm. nga bëgg ni da koy gàbb di ko picc ren ji onze hectares mhm. onze hectare daf ñu téye ñoo am tracteur boo xamee ne ni daf koy aménager da ngeen ko mujj ay gàbb ak picc lañ ko defaree ba mu jax tàkk moo tax ma ne la sànq ne la jeunes yi dañu jël seen matuwaay ne ñoom dañuy bay mhm. dañ ko gàbb ak picc ba mu ba bion nekk yëpp onze hectares oh, ci wàllu goutte à ñun utiliser gu ñu goutte à ñun ay bion la ñuy utiliser bionnaay arrosé mhm. bion yi tooy dina bare ñax parce que euh, li mu war a jël ci ndox quantité ndox mi muy jël mooy bare mhm. bokkut ak li muy wax ni goutte à goutte goutte à goutte soo ko utiliser doo doo doo doo doo liggéey lu bare mhm. comme ngoos ngoos bi mu doon wax sànq nii bokkul ak euh, ak bion bi mhm. bion bi moom des fois bion day fees del ndox bu surtout période tàngaay bi ñax mi daal di euh, daal di bare waa li nga xamante ni moom mooy euh, moom projet mon avenir di kuréel ba nga xamante ni dañu jóg di dimbali ndaw yi nga xamante ni dañu yor seen projet hmm. ku ñu fekk li nga yor sa projet euh, di def sa nekk entrepreneur di def entrepreneuriat dañu dimbali est-ce que yéen waa ndawi Kër Maseen jot ngeen ci moom projet mon avenir ñoo ci jëkk jot yéen jot ngeen ça fait presque am na at ak ak lu teg ñoo jëkk ci ñi jëkk bind demande yóbbu ko roso déposé ko ci lañ bokk. waaw déedéet waaw noo ci jëkk jot boobu mooy lan da ngeen jot ndimbal wala jot jotuñu ndimbal c'est-à-dire hmm. ñoo jëkk déposé ñi jëkk déposé waaw ba ñu ko waxee ngeen déposé ci ñi jëkk déposé lañ bokk waaye ba léegi na at léegi ba léegi jéeguñu ti dara pour man sax bouclé nañ ko bu yàgg mi ngi am nag ba tey waaw kon jotaguñ ma la ko kon ngeen jotaguñ ngeen renouvelé waat demande jotaguñ Ah. <laughs> yaa ngi doon wax sànq ma dogloo demoon ci moom euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, euh, goutte à goutte bi ak ndax ñoom dañu koy dimbali dañu koy dañu koy dañu koy utiliser voilà merci ci li nga xamante ni moom moom nga doon wax ne dañuy war a dañu war a tàggatu dañu war a am na loo doon expliquer sànq waa dama ni mhm. ndaw yi dañu war balaa balaa ñoo wax sax waxi bay mhm. ci bay dañu war tàggat ndaw yi dañu war ubbi ay bërëb yi nga xam ni dañ fay tàggat ndaw yi ci mbiri bay. mbay day am na solo waaw bu leen ci tàggatee ñooñu léegi bu nu ñooñu bu ñooñu bu leen tàggatee. Mhm. booleeg ñi nga xam ni ay volontaire la ñi nga xam ni dafa mel ni comme ñun def formation ba pare. Mhm. bu leen boolee ñoom. Mhm. ñooñu daa leen da da daa leen mën boolee liggéeyandoo ak ñoom. léegi nan nga leen di jëlee. mooy que ni ci ay ci ay nu mu tuddati sax. Euh, da leen di boole. Mm-hmm. def bi ay coopérative coopérative yu mag mooy ñiy génn ci centre de formation yi ak volontaires yi boolee leen ñuy liggéeyandoo nga jël espace jox leen. Mm-hmm. jël ay moyens yu doy jox leen mais fekk xam-xam baa ngi fi bu pare encore. Mm-hmm. parce que am na baykat yi nga xam ne bëri na ñi nga xam ne dañuy woote seen bopp ni ay baykat lañu. te ne du ay baykat. parce que mbir mi mënoo jàngoo ko judduwoo ci. coono yu bëri rek. dama koy def rek la dama koy def nii rek. pour man bëgg-bëgg laa ci amoon. Mhm. bala ma kaa def mais mënu ma ko woon def parce que aw ma ci woon xam-xam. il fallait au te ba tey dama ci ko nit jàng. Mhm. ndax tey pare naa formation dëgg la. Mhm. mais fu ma gisee baykat damay ñëw toog ci moom xëy na am na li nga xam ne dinaa ko mën jàng ci moom. su ma gisee euh, ay vidéo ci internet dam koy dugg xool. parce que jàng du doy. Mm, mm, mm, te léegi lépp dafa yomb pour nga nit ki jàng sax dafa yomb parce que euh, dañuy wax euh, sunu maam yi dañ daan getu livre ay weer pour jot ko ñun livre sa téléphone nga koy am ak sans ou guier de am na am li nga xam li ngay bëgg rek. la nga xam li nga bëgg rek tàppe ko ñun la moo ngi nii. léegi daal man li may ñaan mooy kani na baykat yi gën a taxaw na jeunes yi gën a taxaw. Mhm. xam ni administration mu yorul dëkk mm-hmm. secteur privé yor dëkk nañ ci taxaw mm-hmm. am na solo Euh, euh, am na solo euh, Mouhamed bu ma dellu si waatee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Kër Masar ndax bu ñu bëggee wax tamit ne yokkutab réew ndaw am na ci solo waaye tamit jigéen am na ci solo ndax wàllu mbay gi jigéen ñi Kër Masar ñi ngi ci yëngatu ak bu ñu ci yëngatu fan lañ ci toll ndax am nañ ay jafe-jafe wala ñoom daal ñu ngi ñi ngi wéy ak seen bopp ndax jigéen ñi kat ay jàmbaar yu fàkk tëdd nañ nag ñoom nag bëriw ñu jàmbat nan waxante dëgg waaw noonu jigéen jàmbaar lañ trop jàmbaar lañ yu mag mhm. ci wàllu maraîchage mhm. ñu ngi chaque d'ici depuis trente ans wala lu ëpp loolu li may xam ñoom mhm. année bu ne ñu ngi ci seen tool. Mhm. ñu ngi bay te ñoom aussi amuñ superficie boo boo xamante ni rey na yaatu na encore. Mhm. suñu leen mënoon jàppale ñoom it ñu am superficie. ñu mën a aménager ci lenn ci tool yooyu. waaw aménager ci suuf soosu parce que fi ñuy bayee euh, marmi jalaw dafa doon dex gi daal dafa doon loo xamante ni dafa occuper suuf su bari. dak yi aussi suñ ko gasoon ba nga xamee ni day nekk benn canal ñu canaliser nga xam ni fi muy jël ci wàllu suuf dafa mhm. bare euh, daañu am fu ñu yokk seen tool mhm. jigéen ñi jàmbaar liñ ñu ngi liggéey waaye jafe-jafe ci ñoom la fekk baax ñoom dañuy muñ rek parce que yéen daal yet bi fépp la dóorandoo booboo gën a metti parce que mhm. su fekkee ni jigéen day dem di di di liggéey tool mbaam yi di ko yàqal jur gi di ko yàqal ba bëccëg kon maanaam yàqu-yàqu am na fa yàqu-yàqu fa la ëppee mhm. parce que euh, ñoom ñooñu li ñuy daj mhm. nun góor ñi sax duñ ko daj waaw kon nag damay interpellé euh, jawriñ bi nga xamante ni moom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu ndaw ñeeg jigéen ñeeg njaboot gi na leen gestu ah. ñoom ñooñu li ñuy daj na leen gestu dañ leen war a gestu parce que mhm. li ñuy daj nun góor ñu duñ ko daj ah ci wàllu mbaam ala ci wàllu nag ci wàllu béy te mënoo xëy liggéey tool ba ngoon nga bëgg a noppalu jur gi ñëw di ko yàq kon maanaam lu lu lu yàqu-yàqu boobu di garder loolu mën nekk yàqu-yàqu boobu li gën a am solo ci tool yi maraîchage yi aussi mhm. mooy ñu jéem a leen jox ay grillage voilà ci loolu yoo xamante ni day pro euh, kii day mooy couvrir tool bi tool bi mhm. ba nga xamante ni yàq-yàq du am. parce que su fekkee ni tool bi da ngay liggéey ba pare dem dara ñëw yàq sa gannaaw amatu solo. te ñoom amuñu doole bu ñu ko mhm. jëndalee seen bopp wala. amuñu doole amuñu doole. mënoo mhm. chaque année nga jënd grillage kooku état rek moo ko mën. te te te est-ce que ñoo est-ce que sax euh, bu ñu bu doon chaque année sax ñu koy jënd. est-ce que tamit li ñu ci euh, li ñu ci euh, li ñuy récolter ci ci ci ci jardin bi. dina mën a satisfaire seen ay besoins tamit ñoom tamit. mu ngi boo fa satisfaire seen besoin am na loo xamee ni mu ngi koy fat fatt na benn trou. mooy mu ngi fattal mu ngi leen di fattal benn benn boor. Mhm. c'est-à-dire benn boor mu ngi koy jàpp bu saa yoo xamante ni seen tool ñor na. ah waaw daañu bay daañu bay lekk. waaw daañu waaye a du ñu mën a indi fii est-ce dinañu. comme nii ko ni ni ni ko ñeneen ñi di bayee def ci ay oto def chargé ay oto non ñoom duñ ko duñ ko man parce que li ñuy bay moo barewul mhm. su ñu amoon superficie bu yaatu daañu bay du loo xamante ni ay camion dañ ko yëpp mhm. waaye nag seen suuf yaatuwul ndax ay jigéen ñi jàmbaar waaw su fekkee ni jàppale nii leen ñoom it ci am voilà ci ñu am mhm, suuf daañu parce que jàmbaar nii def naa ñoom jàmbaar nii trop wante nag yàqute yi ak ñàkk suuf su su su su yaatu moom it ñoo ngi nit ñi bëgg nañu liggéey waaye suuf si dafa am ci benn boor boo xam ne dafa feyti dafa dafa ñun ñii ci wàllu aftut aftut bële ko defar def benn kanaal boo xamante ni cinquante deux kilomètres lañ ko gas digal nu ko digal nu ci ba léegi euh, yéen yéen suuf soos nga xamante ni euh, suufu mooy suufu aftut aftut saaxili bi af tut boobu maanaam euh, euh, suuf soosu ñu doon séddale foofu at moom est-ce que yéen population Kër Maseen am euh, am ngeen ci. du kenn du kenn ku ci am benn mètre. Ah, pour te dire ma du noo waroon noo waroon njëkk séddu. Mhm. parce que sunu suuf la ci lu bokk. Mhm. képp ku doomu Kër Maseen ci suuf nga. waaye du kenn ku ci am benn mètre. Mhm. suuf sa ay jàmbur ñoo ñëwoon ñu jox leen ko bi ñuy dem am na ay ay ay yenn homme d'affaires yu ci yu ko jënd. wala ñi nga xamante ni dëkk niñ ci booru Kër Masar foofu jënd niñ ci suuf képp ku fa am suuf léegi da nga ko jënd di fa bay waaye du benn waa Kër Masar boo xamante ni. maanaam mooy suuf af tur bi ñu doon séddale bi ñu ñu mooy suuf af tur mooy af tur bi nga xamante ni canal bi ñu gas indi ko ba fii mhm. Mhm. defar fa seen jardin jamonoy bu njëkk bi jamonoy président bu njëkk bi defar na fi benn jardin boo xamante ni ay arab ñoo fa nekk di fa bay lëjum qualité noonu suñ ko defoon doomi Mauritanie kon tey Maroc sañ amuñu amuñu. sañ sañ di Marocain yi dañuy liggéey dong góorgóorlu leen. dama ne la <laughs> suñ dama ne la su Marocain yi Marocain yi la ñuy def ngeen góorgóorloo ba def ko ngeen tamit di ngeen di yóbbu di euh, seen. Maroc ñooy suñuy ñooy suñuy ñooy suñuy kii ñooy suñuy. waaye suñu dëkkandoo lañu. dëkkandoo te mhm. ci ñoom la ñuy xool. Mhm. parce que su fekkee ni Marocain yi dañuy indi qualité ñëpp naw leen ñun ñu taxaw ni ñun. qualité bi Marocains yi di indi suñu amoon ku nu jàppale ci li nu bëgg mhm. daanu indi qualité bu mel na moom wala bu ko dàq kon war na ñu essayer loolu ba xam yow daal wóolu nga sa bu baax waaw jërëjëf euh, am na solo njiitu réew mi waaw ci dëkkaale ba mhm. tey waa daara daara beneen quartier boo xamante ni bu nekk ci ñu côté ñoom mhm. at yëpp bay ñu aussi au passage ci nga xamante ni dëkk baykat la ñuy mm, lan mooy seen problème seen problème mooy ndox lañ leen xañ xañ at yëpp te ndox mi ni dañ leen di defaral seeni i canal dañ leen di canaliser foofu ba léegi amul ba léegi bay ñu suuf saa nga wow koŋ te ñoo xamante ni ay jàmbaar lañu ci mbay mm-hmm. surtout maraîchage mm-hmm. kon au passage euh, ñu dañ leen di dugal ci programme bi parce que du ñu ay yaafus mm-hmm. ñu mën a liggéey li te ñi daan contribué wu ci ci ci ci liggéey ci ci mbay ci biir réew mi la ñu bokk. naka suñu mm. mbokk yi waa Daara yooyu di benn localité bu nekk foofu ci Kër seen ñoom tamit comme ni mu ko waxee ay jàmbaar yi fàkk tëdd lañu euh, ñoom tamit ñu am problème mu ndox rek ba mu mu ji leen gàllankoor ci wàllu voilà am na solo euh, ñu ngi ñuy signalé ni li ñu cërale woon ci waxtu léegi mu jeex euh, Adama Sy maa ngi lay wax ne bég naa lool ci déplacé dépla ci déplacement bi nga déplacé wu ñu fekk si ñu fii ci télévision bu Mauritanie ngir waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy sa wàllu yëngu-yëngu di wàllu mbay looy tàggoo mbokku téléspectateurs yi defe naa ne mënuma fi toog ba fii jóge Eh, te duma sant waatu ngeen bi nga xam ni bokk ma fa wante falaa wàcc mhm. ndax man fi ma fi may bayee mi ngi nekk 18 kilomètres de Rosso mhm. ñu ngi koy wax dëkk bu nuy wax Chigar Cheikh waaw. tu ngeen tamit gis naa fa ay jigéen ñu jàmbaar. ñëpp jigéen ñi wàllu yëpp ay jàmbaar yu fàkk tëdd lañu. macha allah donc ñooñu bëgg naa ñu gestu leen wax dëgg yàlla. incha allah ñëpp ñëpp nga bu ñu waxee gis nga wàllu seen seen problème yëpp dafa doon benn te bu ñuy sitee benn problème mu dëkk rek mel na ni problème mu dëkk yëpp la ñu cité te am naa njortu que ni euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy les concernés maanaam waa kër jawriñ mi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk wàllu euh, wàllu mbay gi ak waa kër jawriñ yi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk euh, wàllu ñi ñu gestu jigéen ñi ci lépp la nga xamante ni moom mooy seen wàllu tax taxawaay euh, ma bàyyi la nga continuer. Euh, bu loolu weesoo maa ngi sant yàlla julli si yonent bi di la remercier si invitation bi parce que tey. Mhm. lii progression la. Mhm. parce que ñi ngi am am daawuñu woon am fu ñuy waxee suñuy suñuy problème. Mhm. mais tey au moins permettre nga ñu am fu ñuy waxee suñu problème maa ngi ñaax tamit ndaw yi. ñu lancé wu ci dans l' agriculture. gën a góorgóorlu ñi nga xam ni agriculture yàpp nañu du seen domaine. ñu lancé wu ci dans l' entrepreneuriat. Mhm. parce que secteur privé mooy doxal dëkk. Mhm. maa ngi gërëm nag PEK waa PK bi ma bokk. suñu waa kër sama gaa yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen euh, jaajëfal euh, jërëjëf. waaw di jaajëfal euh, sama sama sama taw bu góor boobu Amar Fall mi ma booleeg yow ba tax ma xam la Amar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Nouadhibou bi yëpp nag looy tàggoo mbokku téléspectateur yi. li may tàggoo lu may tàggoo du du ay gërëmaate damay tàggoo Euh, ay waay yor réew mi mun nu fi ubbilee jàmbat tëjee nu jàmbat tamit mooy ñi yor yor réew mi nañu nañu nañu taxaw baykat yi c'est mhm. dugg ci biir roq-roqaan xool baykat yeeg seen i jafe-jafe ñu résoudre réew mi avancé mu te ni jëm kanam mhm. loolu rek laay tàggoo bu jëwriñ bi yore mbay mi ñëwee na dem ci biir baykat yi mhm. dugg ak boppam xool ba mu yónnee ndaw na xoolal boppam daaw juróomi délégation ñëw nañu fekk ma Kër Masène ku ci nekk ci ñoom ñëw daal di bind dem problème yi nga xamante ni laajte nañ ko wax ni wax nañ leen ko bind nii dem ba ba tey kenn gisul kenn amul solo kon jëwriñ bi bu mu yéeneet kenn na ñëwal boppam doxal boppam doxal tànkam ñëw problème suuf yi nga xamante ni ñu ngi gàllankoor mu réglé ko suuf mënu nekk ci place ay centaine des années kenn ko bay te ñu wa ko war bay toog taxaw amuñu suuf. Mhm. kenn joxu leen kenn légalisé mhm. loolu rek laay tàggoo di leen gërëm yéen waa télévision ci dalal bi ñu dalal aussi <laughs> progression la comme ni ko <laughs> sama sama sama. jërëjëf maa ngi lay gërëm man tamit mhm. euh, bu baax euh, di la wax ne. am naa loolu mbégte ak bànneex euh, toog ak yow ci plateau bi euh, di leen wax ne moom mi ngi jógee ba Kër seen wax dëgg yàlla bi ma ko ko waxee daf ni ma amul benn problème daal dina ma euh, lépp la nga xamante ni jàppoon naa ko dinaa ko bàyyi ngir ñëw teewal sama askan waaye it ngir ñëw teewal képp ka nga xamante ne tey ji yaa ngi di baykat ci si fi nga xamante ne moom mooy vale bi ndax seen i jàmbat yëpp benn la seeni problème yëpp benn la te fu ñu ko jooyee rek xàcc bi fu mu dóoree rek dina dal ñëpp di wax ne mbokku téléspectateurs yi fii la suñu émission daree képp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ànd ak man ci wàllu réalisation bi euh, ku ci mel ni ki nga xamante ni moom mooy Eli Cheikh euh, son euh, kii di Mouloud Abdoulaye moo ca nekkoon caméra kii di Mouhamed Hamdel Havel moom moo nekkoon ci fi nga xamante ne moom mooy caméra bi Abdoulaye moo nekkoon fële ci régie ànd ak Chérif euh, bi euh, di jaajëfal képp ki nga xamante ne tey jii yaa ngi toogoon di seetaan euh, suñu émission bi waaye it du ma noppi te jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy sama naataango l'infatigable Babacar Naam ci élément bi nga xamante ni def na ko di ko ñaanal jàmm di leen ko ñaanal yéen ñëpp jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amaanillah